شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم آمين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم واجعله لنا حجة يوم الدين اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات والذكرنا بما ما ضربت فيه من المثلات وكفر بتلاوته عنا السيئات إنك مجيب الدعوات اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على ما على غير ما أنزلته آه. أو تعجيل عند تلاوته آه. أو كسل أو زيغ اللسان آه. أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمهذب من كل الألحان وارزقنا فضل من قراه مؤديا يا حقه مع الألعاد والقلب واللسان والأولاد وهب لنا به الخير والسعادة والبشران والألمان ولا تختم لنا بالشر والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونكير ومن أكل الديدان وبيد وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتاب حسابنا ويسر حسابنا وثق ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكنا وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء حزاننا وذهاب غمومنا وقال قائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعل أبيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصاحبنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة وموفزنا في الفتنة واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحق وحقق بالزيادة آمالنا آه. واغرق بالعافية غدونا آه. وآصالنا آه. واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واسبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تفواك زادنا وسقط بك زورنا واعتفادنا وأمن من الجوع والخوف بلاد السواسي خير بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا بروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم بلغ ثواب ما ما قرأناه ونور ما تلوناه لروح إبراهيم جوف ويا صنف وسم جوف ويا مجوف ولروح سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأزواجه وذرياته وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا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 ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax te eh, di am mbégte bu kawe ak cant rek eh, di ñaan yàlla yàlla mi nga xam ne dara teewu ko yàlla nañu yàlla nangul lu ñu dajale fii ñi nga xamante ne ñoo waral bés bi yal na leen ko la jottali ak ñim fa fekk ñëpp ci daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñuy wone suñu mbégte bu baax a baax ci yéen vraiment bu ñu amoon leneen lu dul sant leen wala ñu ñaanal leen bu baaba dinañ leen ko defal ndax nit ki mom li nga xamne monoko bo amé kula ko defal foku war nga ko sante bu baakha baax war nga ko ñaanal yalla tamit bu baakha baax kontan nañ ci bu baax ñu ngi leen di ñaanal yalla e yalla na leen yalla taxaw yalla na leen yalla barkel yalla na leen yalla baye ak seeni xel yokal leen xam-xam bi bu baakha baax yalla mo am samu yalla na leen samu amin te taxaw leen tamit bu baax yalla xam na ni bu ñu amoon leneen lu sant kon dinañ leen ko defal ndax ñi nga xamantene ne ñoo waral bes bi nag jaral nañu lu ne yalla xam na loolu kon bu ñu amee lu mel nii ngeen ñu bes bu mel nii jar na sant yàlla bu baax a baax ñu ngi am mbégte bu baax ci yéen di kontaan bu baax a baax ci yéen di leen bàyyi ak yàlla rek yàlla nañu leen yàlla feel te taxawu bu baax e eh, baax njaboot bi nga xamantene ne nek ci kër gi nah, tamit nga xamantene ne organiser initiative bu melni ah ñu ngi leen di ñaanal yalla yal na leen yalla barkel lepp lu ngeen ci def ran be doon yalla na ko yok te fulandi ko te barkel ko yalla am ko na ko na leen ko yalla defal vraiment nit li rek la am ci wajuram li rek la mon ci wajuram ndax suñu suñu la daan na wax lu mel nii mu ne dee méttiwul dee ñu fàtte la moo métti dee méttiwul waaye nga dee ñu fàtte la moo métti waaye yéen de wane ngeen ne yéen fàttewu leen seen waajur fàttewu leen tamit seen i mbokk yi nga xamante ne ñoo jiitu taxawu nga leen fi nga leen di war a taxaw yal na yàlla nangu te barkeel leen bu baax a baax a baax ah, vraiment maa ngi jégalu ci kàddu yi nag bu baax a baax. eh bu motul rek ngeen xam ne ku di la moo doon wax ak yéen waaye suma ma sañoon mu ëpp lu ma noonu bu rafetee tamit ngeen xam ne borom bi la asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. bisimilah. ko jëlale bàyyi ko waaye bu ñu ko xoolee mu bon lépp loo xam ne nii def nga ko borom bi subhanahu wa taala dina ko càmbar ndax kóllëre gi faslante woon sa digganteeg sa borom muy julli respecté woo ko. da ko doon sànq lu mu la neexee kon mbokk mi yal na yàlla yokk xam-xam bi yal na yàlla guddal fan yi waaye li nga ci li nga ñu ci wax tamit yal na ñu ko dégg ñu ngi gërëm ñi fi dajee yëpp surtout ndongo yi ñu ndaw ñi nga xam na nii ñoom ñooy jéem a xeñtu ak alxuraan ñoom ñooy jéem a gëstu alxuraan te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf nañ won ki gën ci yéen mooy kiy jàngale ki jang alquran ta diko ko kon jotay bi te amna ño ñoo ni ñom ñoy sangu jotay du sama wax wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal yalla def leen gën doon ay mag yalla yalla wacce barke alquran ci dekk bi wacce ko ci ñi ko doon jang ci dekk bi waye wacce ko ci ñi ko doon ci dekk bi yal na yàlla def loolu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ki ñu fi dajale muy Baye Ibrahima Diouf yaakaar na mooy caatu daaru salaam lañ koy wax muy ku baax ku yàlla baaxal waaye ku bëggoon lu baax yal na yàlla xare ko ci ajana ya gën a kawe moom ak ñu ñu boole. jàngal xatmu bi bi fii yal na yàlla yokk seen leer bi jaay Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal njaboot gi ci kër gi yal na yàlla guddal seen fan di dalee ci ki gën a doon mag ba ci gën a doon xale yal na yàlla sàmm la waaye mbokk yi ci julli moomu ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu waxoon ne افضل العمل ني نكو امون الصلاه لي وقتها تا اور القران وحات نانيو ان الصلاه كان ان الصلاه كان على المؤمنين كتابا موقوتا سما كلاس غي داني توك بون خيه جولي صبح دم لين ليغي تو صبح دنج كوي لب تاكوسان دنج كوي لب تيميس دنج كوي لب با غاي ني بوله لب est-ce que yàlla leen wax ñu leb ko julli dafa am waxtu bu ñu ko waxtul dañ koy fexe te di ko joxe foofu te sax nag di ko joxe ca mbooloo ma ndax nga dégg ñu ne allahu akbar nga bàyyeekoo sa kër jàpp ñëw fii julli fi ak mbooloo mi di nga ëpplee ka jullee këram ñaar fukki daraja ak juróom-ñaar 37 point di nga ko ëpplee Lol, lol, loolu du caaxaan de bu beure du caaxaan waye nit ñi dañoo yaakaar ne julli mom fu mu la fekk rek nga julli yalla na yàlla nangu yeb waye nak fi lañ ko gëna a fi nga xam ni fi la tiyaba bi gëna beure bëree ñuy dund dund jamono bu xat ya, yonent bi daf ñu daf nañu na ngeen préparer jurom bala jurom di ñew fi nga doonee xale ba bi ngay doon mag wala fi nga doonee waxambaane ba bi ngay màgget lépp loo fa mun a def ci lu baax te defal ko yàlla te defar ci sa àdduna na ko def ndax ak xale moom màgget rek a ciy topp bi ngay wér defal li nga war a def sa digganteeg yàlla sa difa sa digganteeg jaam yi balaa wéradi di ñëw bi ngay am jot defal li nga war a def sa digganteeg yàlla sa digganteeg jaam yi balaa ñàkk jot di ñëw bi ngay dund jaamul yàlla defar li nga war a def balaa dee di ñëw loolu nañ leen ci bàyyi xel bu baax a baax a baax jamono yàqu na ci côté bu nekk réseaux sociaux yi lu ne la ñuy wax léegi ki daq saaga ci réseaux sociaux moom moo moom moo moo am buzz kooku lañ naan am na ay vie nangami vie nangami millions yi vie te la mu wax daraa ca baaxut waaye sama classe gi bu ñu ko rombee il faut ñu ne dañ nañ xool léegi yow yaa ngi fii ci Farabugu moom mu nga Amérique wala mu nga ci beneen réew yow yaa koy fay te xamuñ ci dara romb ko xool ko rek wala nga laal sa loxo rek am na fa benn vie vie boobu ay millions lay doon ci moom. ñu ngi fii di fay ay nit ñu nekk bitim réew te ñun xamuñu ko te bu nekkoon leen leen di fayee jar na ko sax ñu mun a wax mais jaru ko ay saaga lay doon ay wax yu bon tubaab bi daf ñu tardeel indil ñu téléphone lépp lu baax nag lay wut ci ci àdduna mu ngi ci téléphone waaye safaan ba yi tamit mu ngi ci téléphone kon ñu ngi sant yalla bu baaxa baax di jéggalu ñi fi teew yépp man ko won la dëkk seen mbokk jambu xébu la dama bokk ci kër gi tamit nak ndax dama fi am soxna di leen jégalu yéen ñëpp kaddu yi li ci joom yaakaar naa ne ci man la waaye mu rafet rek laa bëggoon maa ngi nuyu oustaz Seck xam naa ko sama wëllëre la di ziarewaat suñu kilifa gi toog di nuyu nag di màggal di feddaliwaat suñu kóllëre ak ñi fi tas tey yëpp te jógee ci gox yu fasante ko di ñaan yàlla lépp lu ñu fi jëlee ci xam-xam yal nañ ko mën a jëriñoo te yal nañu jëriñ yal na jëriñ njaboot gi yëpp di ñaan yàlla kamil bi ñu fi jàng yalla yàlla nanguko di jaay mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullah adam bil نسي فضل بني آدم بالعلم والمعرفة والصلاة والسلام على مفتاح باب الهدى ووسيلة للوصول إلى الحضرات إخواني في الله والأخوات السلام عليكم ورحمة الله بقي جناو بلا continuer sama kaddu li tax ma wax sëñ bi na ko maa ngi sàkku ndigal mooy ñun duñ def dara loo mooy ndigal waaye tam ñu sàkku balaa muy wax moom ñun ñu wax ndax comme ñun xam nañ ne amul xam-xam te itam mënuñuy wax mën naa am suñu wax dina am jub te bu boobaa sëriñ bi bu waxee dina ko jubbanti te bu boobaa it dana ma jéggal waaye mën naa wax itam eh, am loo xam ne nii yàq naa ko ci masala wala ci hadis mu jubbanti ma gàggat ma jéggal ma loolu moo tax ñu taamu balaa mooy wax rek eh, ñu wax eh, gannaaw boo xamee ne sant nañu yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu mbooloo mi yëpp di siyaare ñi nekk gan ak ñi fi dëkk di wax ne kii di wax ak yéen benn waay la boo xam ne rek eh, yàlla def ko boole waa kër gi daanaka ci jeextalu noor bi laaj bi ñëw ubbi daara ji maa woon daara ji bi fan yi rek laa bi bayee ko kon yëpp ñu ngi may woo waa ñu yàlla wàcce ko ci ma ci barka alquran barki yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, gannaaw loolu ñu ngi ñaax ndaw yi ak waajur yi ak képp ko xam ne yàlla moo ñu ko jox jaaree ko ci alayhi salaatu wasalaam te mooy boo xam ne képp ko xam ne ab jullit nga war a koy sakkanee ndax téere la boo xam ne euh, suñ benn bàyyi daara waxoon na ko asa kitaabun kitaabun fadlu isaara bil xayr fal xaqu ma jaa fal fal xayru ma xaal nee na téere bii ni téere alquran dëgg lay wax jàmm lay wax kon képp koo xam ne ab jullit waroo koy sage su fekkee yàlla def na ba nga yow yi hubboo ci ba nga hubbali ci ci dara su fekkee jur nga doom fexeel mu xam ko wala nga am sët fexeel mu xam ko wala nga dem xamlu ko la koo xamlu waaye téere bii daal bokk yi ëpp nañu koy sàgganee ndax képp ko xam ne ab jullit nga war na nga jàng moom farata la ci yow sëñ bi mu doon wax ñu julli waaye yaakaar naa bala ngay julli jàng moo ci njëkk ndax loolu la ñu yonent bi waxoon banul madarisa qabla al masajida fi mu nag jàkk yi rafet na tabarakallah jumaa yi rafet na da ngay dem ci dëkk boo xam ne dafa fekk fukki jumaa wala ñeenti jàkka jàkk jàkk bi ñu ñu ko defar ba mel ni or waaye boo demee ci daara ja ustaas ba koy jàngale wala sëñ daara ba koy jàngale da nga koy yërëm élèves yi xam ne ñu bay jàng ca melokaan woon na mel mbokk yi li jaaru woon mooy ñu samp daara yi samp école yi fayal ustaas eh, eh, fay ustaas bi muy jàngale ba imaam mën a taxaw ci kanam di wax lu nit mën a dégg wala maamu mën a taxaw ci kanam gannaaw di roy imaam waaye léegi jàkk joo dem boo kurisee imaam ba mu daanu na ma yàlla baal dañoo seetati imaam boo xam ne mën naa jiite wala jàng na yi ki fi mag la ñuy seet wala ki fépp daraja wala ki ñu waxoon ne dem na daara nit dana dem daara te du jàng nit dana bàyyeekoo te daara ja jàng sax te du mat imam te loolu yëpp dañ ko doon seet kon bokk li ma bëgg a wax foofu nañ jàngi jàngaloo ji suñ doomi te itam nag lu am solo la ndax lii tey eh, yonent bi waxoon na ne isa maata na adama in qataa amruhu ila min salaasa sadaqatun jaarin wa ilmun yantafa bi wa waladun saalihun yad'u lahu yonent bi noona Eh, doomu aadama ko fi bayee ko lu mu bëri woon yëngatu oto yaat étage yaat pacte yaat terrasse yaat milliards ya soxlaatuñ ci dara dara jëriñu ko la koy jëriñ la ñu ne ko lan yaa rasulullah mu ne sarax boo xam ne defoon nga ko fi lu mel ni teen nga gas ko wala garab wala jumaa joo xam ne tabaxoon nga ku ñu cay ñu ne ko ak lan mu ne wala téere boo xam ne bindoon nga ko ñu koy jàng da ko jàngale da ciy jëfe nag lañ ca wax ñu ne ko ak lan mu ne waaye waaye li ñu gën nag li ma tax a jóg mooy wala doom joo xaban xam ne baax na eh, jàng jub da jaamu yàlla dala ñaanal lii la yonent bi waxoon kenn ku ne ci ñu bëgg nga boobu bàyyee sa doom taxawala lu mel ni jàngal la kaamil eh, mbokk yi kon ñu ngi eh, wax ñi def lii yàlla na ko yàlla saxal te ñu ngi ñaax gune yi na xam ne ñoom ñooy doom yi wala ñooy sët yi nañ dem jàngi te buñ jàngantu jankantu ray nañu de dina ji bi waxi kesse mo ci gëna bari bëri waxuma ne dina amu dina am na de parce que xam nañ ne dina mom du fi jóg mukk waye li jëpp bari wax la euh, yu bari nax nañu bokki nañ jangé alquran te jëppé li ay yalla wax ci alquran waye jàngi ba ñew ñu nodd ci jakka ja jappo sa jëloo sa tra julli defoo dara jàkka ji dëkk ak mom nga tok gay dem japp julli rombu bi wi ñu la demone nga dara yaangi nax sa bop naa sa sëriñ bokki waxtani mu ngi bëgg guddu ma ngi jéggalu ñëpp di gërëmaat ko ak gi di wax itam nak ni ñi ngeen defal li ñu jara defal lañ tax ñu bëgg diina lañ ñu jub lañ ñu ando lañ ñu mëna dimbalante lañ ñu bëgg islam lañ ñu bëgg alquran lañ ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp sëriñ bi ma ngi jéggalu su fekkee am na lu ma ci yàq ma lay ñaan nga defal ko te jéggal ma maa ngi jéggalu mbooloo bi yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa allahuma salli ala seydina muhammadin wa sallim wax ji mat na ndax jàng nañ fi ay kaamil jàng xatmu bi mbokk mi sëñ Babou Dramé waxtaan na fi ñaaxe na ñu ngi sant yàlla ci daje bi ndax li ko sabab mooy wayjur wu baax wu fi nekkoon ba dem fa nga xam ne fa lañ koy fekk wucc fi lenn ci dige yi nga xam ne moom la alayhi salaam dige woon ne ki génn àdduna bàyyi fi ci ñett yi benn sa jëf yiw duñ ko duñ ko bloqué bàyyi Ibrahima Diouf bàyyi na fi doom yu baax moo waral jotaay bi tey yal na yàlla gërëm ko ba gërëm képp ku fi ñëw li xew ci jamono ji sama njàngat mooy xaafis tey la gën a yomb tey la gën a bari tey la gën a teel ci xale yi waaye mokkal alquran te mokkuñu moo sooxe diina ji yar mooy mbir mi fim nek ni dara daara yu bari ñu ngi jongante ci alquran di jongante ci ko gëna mokal di jongante ci kan mo gëna neex alquran mag ñe ñom ci lañ daan jongante mooy saalihu daanuñ xaccoo kang, daanuñ xaccoo fóode daanuñ ko ndamo saalihu lañ daan ndamo suñ delo buum ca boy boy ba rek li fi newoon del ci alquran soppeku ben yalla lañ am benn diina lañ am benn rasool lañu am bu ko defee yar bi su soppeekuhut la fi neexoon du fi jóg waaye yar bi yàqu bi nag moo tax daara yi ñu sooxeel ko moo tax jàkka yi gent gunekat loo bëgg mu ñoree ko danga nga ko caay togg ba muy doon ndaw ndax gune togg gu ñoragut la togg gi ngay togg pour mu ñor la nga bëgg mu ñoré ko moom nga koy toggé kon nañ yaraat gune yi delloo len fi nga xamné ne la alquran bëgg jang alquran ba mokal ko da sa yar bi dara baaxut ci du tax dak jakkay dundu nañ defaraat yar bi fan yi passé matagul wër de señ babakar dama tew ci ben kamil comme li biñ paré di waxtaan ben serigne dara mo jël di wax fi nga ne fi lañ doon jàngee ak daaraam ji ñoo sës muy indi baat yoo xam ne mu ngi wane ne dëkkandooram yi ñu baax lañ ñu mën a muñ lañ ñu xajoo taalibe lañ waaye keroog li mu ko teelee tontu niiw na ndax nam waxee laa nanguwul daf na ku ne xam nga ne taalibe loo taaj mu jël ko loo am mu yàq ko te ñu ngi koy muñ loolu xat la laa wax su fekkee dem nañ ba ne taalibe loo taaj mu yóbbu ko loo am mu yàqu ko kon talibé nekatut li fi yaqdu talibé yaq nañ deri talibé yaq yàq deri tëriñ daara yi liko def nak moy yar bu yaqbi. bi borom daara yi nañ ngank yar jubal njabot gi siraatal mustaqim ñu mëna a doon exemple nit ñi gis leen xamem seen jikko yi xamem seen melokan yi fekk ci leen ci liñ ne waye yar daara ji dana mabbu ndax duñ leen doylo dañuy yar rek alquran yar la dikkee yonent bi alayhi salaam bi ko yàlla tagg jikko la ko taggee taggeewul ko juddu taggeewul ko xam-xam taggeewul ko lenn jikko la ko taggee te jikko yar a koy def nañ yar njaboot bi alquran mokkal ko di ko jàng ñu ngi lay dégg te yar bi baaxul amul njëriñ nañ yar gune yi mokk moo gën mokkal alquran suñ yaree gune yi ñu mokk rek danañ mokkal jàkka ji waaye mokkal alquran jàng ba ñu ne yow jeexal nga téere yi te buñ noddee doo ci boole sa bopp loolu moom baaxut liñ xeebee daara ji loolu la nañ delloo gune yi ci yar bi xam ne diina ji du wax nga ko léegi diina ji dara yombut ci ma ne ko hem ni sang bi sallallahu alayhi wa sallam di bocc ay jaase ki xeej di dëbbante loolu ku ko bëgg yombal dangay caaxam mënta yomb julli bu dowutoon farata sëñ Touba du julli ci géej gi ma ne nañ bàyyi xel ne ki julli jullit nga ki rek moo fi ne ki jullit nga ki jullit yéeféer nga loolu rek moo fi ne maslaa bi new fi maslaa bu fekkoon mooy diine yonent bi du bocc jaasi fi mu ne nag maslaa bañ maasale ñu lañ def ñun ñun ñun jullit yi dañoo maas maslaa bañ maasale ñu nasaraan bi jog taxaw suñ kaw yàq suñ njaboot gi yàq suñ diina ju yàq suñ lépp ñu ne fi de woye di nañ bocc suñ jaasi xol yar suñ njaboot gi xam ne jullit julli lañ koy xàmmee te nañ koy defee ji ca jàkka ya julli fa nga fa la neexee julli du noonu de dafa am waxtu xam fuñ koy defee xam nuñ koy defee du wut nu la neex du wut fu la neex du wut waxtu la neex julli dafa am waxtu dafa am nuñ koy defee dafa am fuñ koy defee waaye fi mu ne li ëpp ci nit ñi buñ toogee ci grand place yi ñung ngi ca carte ga ñung ngi ca yoote wa ñung ngi ca mariage wa ñung ngi ca ndox mu sedd ma ataaya ja ñu noddu tusubaar nga deugal deugal lu melni ni ci te kuñ teural ci buntu juma ji ne julil la waye mané kuñ ne jullit la te do julli julli woo waxi nit ñi rek mo fi ne gis nga gungé niw moy taccu kuy daanu ci teen rek bo taxawé ci bind bi rek dëpp sa gémmiñ doo ko topp mukk waye lu nit bax bax su fi dée ay mbokam ñokoy jangat jangatay jébbal nañ ko boromam te jébbaloo woon sa bop sa borom kéro nga xam musiba nañ jéem ak jël suñ bop jébbal ko suñ borom bala ñu suñ morom di jébbal suñ borom jébaloo sa bop sa borom ba sa morom jébal la sa borom da nga da nga lay lo xam nañ jël suñ bop jébal ko suñ borom suñu suñ morom jébalee suñ borom ñu fekk suñ borom diina du melni hajana diina du melni hajana nañ ray suñ xol yi ray suñ bakkan yi jébal ko suñ borom yal na def ci xol yi deg ak top géer gii na nga xam ne moo war a jotaay bii man li ma yëg mooy Seydina Omar ba muy wax ne wa hodda nii rabbi min ifraadi ummati yi ahlu xilaafaati Baay Ibrahima Diouf ci la bokk ci la bokk kon yéen ñim jaboote yéen ñim wóola ranteet yéen ñi xamanteeg moom wala ngeen xam ay njabootam xam leen ne góor gi royukaay la loolu na ko ay njabootam xam su ma bàyyee baax na duwut pal cas sas la képp koo xam ne dañ la joxoñ baay ju baax nga foog ne fal nga yore lu fi yàqu yaa ko yàq li yàqu si jamaano ji borom derrière ci jiitu su ma bàyyee baax suma maama baax nga def ko pal palte da tiriyaane ne dem da neenal waxtu wi yow lu yàqu ci dina ji yaa reew golo golo ci tool way jur wu baax baax laay jëriñ way jur wu baax sas la nañ ko def sas ba Ibrahima Diouf mii képp kum jaboote xam nga sas xam ngeen sas de léegi la dugg ci néegam ben doom dama netali bi muy ak bay borom dar salam man di na bay gal ci ci ci ceddo ba ko sànnee nakam bokku na ci khair alamin waye mané ki bax bax nga ki ki bon bon nga rek suma baye bax bo baxu do bax yonentou yalla yàlla noon doomam a nga sawara lu ko ko tek mbon ken dootu xam du ci la bok doon yonent bokk ci ulancement sa doom ñu ngi ko du ko laajal du ko du ko sawar loolu kon bàyyi ju baax soo baaxee baax soo bonee bon rek nañ jéem a baax nañ jéem a baax nañ jéem a baax yal na yàlla sotti xol yi baax daje bi yal na yàlla xeres ko def ko dajeeb mat dajeeb sutura dajeeb rawwaay xettaliku waay jëgguwaay jaamuwaay lépp lu fi jaam xaj yal na yàlla warlu ko lépp lu fi jaam bañ mu dajeeg moom yal na ko yàlla soril Yalla jéggal ñi jitu dimbal ñi fi ne yalla def ci xol yi wér def ci leer ak hidayah def ci nuru hidayah yal na yàlla seddal jëmm yi seddal xol yi seddal warsak yeeg barab yi jubal njabot gi jubale leen nank lo leen siratal mustaqim lol nañ ci ñaan yalla nañ ko jéemal suñ bop yalla kat fa ngoy koy ñaan way fa ngay lu way na ñaan yalla dom ju bax da do yar do am dom ju bax nañ yar dom yi nañ ñaan yalla mu yàlla nag moo waxoon Moustapha innaka laa tax di man ahbabta laa Allaaha di man yashaa'u mooy gind ku ko neex waaye ci sabablub jaam ci ngëmëb jaam ci dëgëru jaam xoolug jaam ci laay fekk jaam nañ yar njaboot gi yàlla dimbali ñu ma ne mujjee pusa bu mu réer gàcce la bàyyi Ibrahima Diouf réerulut pusa kon yéen njaboot gi am ngeen sas am ngeen sas de yéen ak ñi nga xam ne ñoom kii ki am na sas moom i nag waaye fi mu taxaw bu ko wëccut pusa bi du réeree ci moom mbollem dom ju bax am wayjuru bax jema la bax yewit li faccee sew bax gis nga jul ñi tok fi ñi ci jàkka ji ñi si biir jàkka ji ñu ñuy xoolee bët yu bax resultat wu mag ñi lañ ñun defaguñ fi dara mag ñi ñon ñom ño bax ba seen resultat genn bax kon ñun nañ jëm ñu nit suñu resultat yi bax suñ ko defé ñi ñi top def noonu kon bax du fi jox waye baay baax nga dik bon réeral nga puso bi te bu boobaa kat sa résultat bu dikkee dana la wone rek Baye Ibrahima Diouf résultat moo wane lii de moo wane lii de wuti fa ay doom ñuy xeñtu mbaax nga dem barsax ñu laay ñaanal yàlla da dajale ay niti yàlla da leen ñaanal da leen saraxeel waa ji lii résultat wu Baye Ibrahima Diouf la kon nag yéen doom yi fexe leen yéen li ci seen ron seen résultat na rafet yal na leen ko yàlla dimbalee yal na leen ko yàlla dimbalee yal na leen ko yàlla dimbalee yaa Moustapha guddal naa sax ndax kat ñi fi wax li ñu wax rek moo ma moo ma taal man waa ndax njub moom rek la wa ma bu illa li yahbudullaha muxlisina lahu diina digal luñ leen lu dul ngeen jaamu yàlla ci ci jaamu gu sell nag jaamu gu sell kuñ yaru doo ko man nañ yar njaboot gi yàlla dimbali ñu suñu xóoloo ne suñ yaree dana jub wallaahi danañ jub la waaye manuma ci dara tubaab bi yàq nañu loolu dafa ndaw de tubaab bi lim ne daf ko jaral taxat na kese lay lay carte kon ñun ñi nga xam ne ñooy kartaal ëllëg nañu jaral ñu nit yàlla dimbali ñu jubalal ñu jubaleel ñu yal na ko yàlla def may ñu fan waa nag faju xaajo yal yàlla may fan waa faju xaajo yal nañu yàlla may wërsëg wu sedd xol yi nañ sedd wërsëg yi sedd jubluwaay yi mat sémb yi mat muraad yi mat loolu yal na ko yàlla def bi jaay Moustapha loolu yal na ko yàlla def bi jaay Moustapha jërë ngeen jëf sant nañ gërëm nañ sant nañ gërëm nañ li yalla bu mu fi mujj yalla bu mu di mujj suñu jotaay yalla fi yag lool ba seedi ngank ko bay xen li yina yalla yalla bu mu fi jogati ndax yi kat la yonent bi diggee won ne moy riyadul janna daje yi kuko kuko ku rek sans la ndax yonent bi ba maa taxani hawa li wax deug la kon suñu riyadul janna moy daje yi kon kuko ko kat war nga ñaan yalla mu sax fi ndax fek mu ngi fi sax fi sax ndax tay li fi ball ci xam-xam wala liñ fi jàng ci alxuraan ak mu bii li mu tënk loolu dajee ko dajee ko sens la fekkee daje ba sens la kon nag yal na yàlla gërëm ko yal na yàlla gërëm ko way dem yàlla jéggal leen ñi fi ne yàlla dimbale leen ci njub dimbale leen ci fan dimbali leen ci wër dimbale leen ci juboo yal nañ juboo yal nañ juboo li fi yàqu saytaane la juba juboo di waaye yal na yàlla dàq ko suñu diggante yal nañ juboo yal nañ ànd yal nañu doon benn bi jaay Moustapha kenn ku ci ne tànnaloo sa bopp wayjur tànnaloo sa bopp mbokk kon nag nañ xam ne ndey ak bàyyi kenn tànnalul ko boppam mbokk kenn tànnalul ko boppam kon yi nañ ko fonk nañ fonk ndey ak baay nañ fonk mbokk gi loolu yàllaa ko tànnal nit man ngay am xarit ngeen yàquwante loolu yow la woon man ngay fas sëy mu yàq loolu yow la woon man ngay xam dëkkandoor boo génnee fii dëkki feneen dootu sa dëkkandoor loolu yow la woon waaye li nga xam ne yàlla la ko sàkkal muy ndey ak baay ak mbokk loolu du dëñ soo ko ñaawalee mu ñaaw nag waaye rafetal li yàlla dogal ci yow moo gën ci yow soo ko ñaawalee rek gàcce dikk wuññeeku dikk yal na yàlla mooñaale ñu ñu gërëm li yàlla dogal ci ñun bi jaay Mustafa sallallahu alayhi wa sallam allahumma salli ala sayyidina moo wa sallim sëriñ bi defal ñaan